Euh, dañoo dégg balaa ñuy ñëw ci suñu sujet bi euh, que fan yi dafa am des tentatives de retrouvailles de la famille socialiste on parle d'une réunion qui a réuni euh, la famille socialiste mu mel ni da ngeen di xool noo leen taxawaatee bon yëgaguma lool xam naa peut-être ñu ngi koy dox may amaguma information pour mun si wax mais li am solo mooy ñëpp ñu war a ànd nekk benn liggéey ndax tàqalikoo bi tamit bokk na si lu gën a rey bu ñu àndee def benn say def benn bloc je pense que mun nañu am dara ëllëg et je pense que su amul bëgg naa loolu ñu ñu def si ay jéego mu nekk parce que ñu ay socialiste lañ donc malentendu moo nekkoon suñu diggante ba ñu tàqalikoo mais war nañu mën a ànd parce que benn famille mais est-ce que malentendu bu nekkoon seen diggante est-ce que am ngeen possibilité aujourd'hui purger euh, tout ce qui s'est passé parce que ce qui s'est passé euh, c'est c'est 2014 euh, des incidents euh, c'est l'emprisonnement euh, de de de de de Bamba Fall après les événements à la maison euh, du du du du parti euh, c'est plus tard l'emprisonnement de de de Khalifa Sall lâché par sa famille politique Euh, 2014 également combattu par sa famille politique. malgré tout il reste Euh, maire de de Dakar. Mm-hmm. mu perte maireem pendant ce temps ses frères euh, socialistes ñu ngi ak euh, Macky Sall. Mm-hmm. te loolu yëpp moo Macky Sall la la la la woon. Mm-hmm. est-ce que mën ngeen fàtte li fi xew yëpp ba àndaat benn say beneen question bi mooy. lan xalifa Khalifa Sall mi dem présenté wu à l'élection présidentielle ban taxawaay lay am face à une Aminata Mbengue Ndiaye euh, qui dirige la maison euh, socialiste traditionnelle face à, à un Ali a des prétentions face à un Serigne Mbaye Thiam qui a des prétentions te nëbbu ko face à un Abdoulaye Wilane a des prétentions te nëbbu ko bon xam nga ko xam Khalifa Sall xam ne moom il n'est pas omnibulé par toujours mu nekk mu nekk à la tête de quelque chose. et j'oublie Barthélémy Diaz. voilà donc voilà xam nga xalifa ku ko xam xam ne moom lu muy lu muy togg. jiite ko du ko soxal bu doon loolu la yow askan bi du ko jox président Ousmane Sonko ñëpp xamoon nañu ne moo togg lépp ba mu ñor dañoo ji Ousmane Sonko moo nekkoon xale yàlla boole ko ak jeunes yi population gat Sénégal bëgg ko mu jiital Ousmane Sonko si biir loolu. donc pour man ku mën a ku mën a fàtte lu bari fi nga jaar ak Macky war nga mën a fàtte lu bari si ñu nga bokkal ay at ngeen nekk ensemble je pense que loolu du problème parce que politique ak yooyu ñoo ànd. des fois day am ay des hauts et su fekkee daa ay difficultés dañ koy jéem a surmonter dépasser ko taxaw nag pour ñu jëmal Sénégal kanam donc socialisme yi waruñu waruñu socialiste yi waruñu dee Sénégal socialisme dafa war a continuer am Sénégal parce que Sénégal régime socialiste moo ko mën a toxal. Sénégal li ñu li ñu xam mooy socialiste socialisme mooy lan mooy jàppalante dimbalante loolu loolu la Sénégal soxla. je pense que ñun suñu parti bi ñu nekkoon démb muy social en euh, parti socialiste li taxoon ñu génn fa leeroon na je pense que bu ñu àndaatee c'était pour reconquérir encore le pouvoir pour man loolu moo tax ñu ànd je pense que bu ñu waxtaanee mun nañu ànd donc muy Aminata Mbengue suñu camarade Aminata Mbengue Ndiaye muy Khalifa sàll muy ñeneen ñu ngi tudd ñëpp ma man lu ñu ñoom ñoo àndoon démb avant tey donc ànd tey bi gis ma si benn jafe-jafe xaw ma ñu ngi koy dox xaw ma doxuñu ko mais su fekkee ne doxuñu ko ñu dox lu am solo la ñu àndaat nekk benn continuer suñu chemin bi nga xam ne moom la ñu jëloon depuis le début. pour pour pour mais mais mais, mais, mais contexte bi contexte bi métti dina métti ci yéen de parce que aujourd'hui vous avez un bloc majoritaire bu nekk Pastef coalition Diomaye président. Ouais. ils ont presque tout pris. Ouais. aujourd'hui vous avez un autre bloc muy Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. am nañu doole ba tey. waaw aujourd'hui vous avez. euh, le parti démocratique sénégalais mm-hmm. bi dundaat wane boppam wane dooleem mm-hmm. vous avez une force politique comme le pure mm-hmm. euh, tey socialiste yi nan ngeen mën a def ba ba ba dellu si euh, ci ci au centre du jeu politique mais liggéey rek aller vers le gens wax ak nit ñi remou remou encore suñu base defaat beneen remobilisation suñu baas yi parce que pour man le parti socialiste déjà mu ngi partout dans le am solo mooy ñun ñun ñun responsable bu ñu amee ambition am conviction ak détermination bu waree war nañ mun ànd liggéey dina dina yomb trop. mais Macky Sall dafa parti socialiste bu ñoom euh, Aminata Mbengue Ndiaye ak ñoom Serigne Mbaye Thiam mais Macky Sall dafa leen yëlëb collectivité locale mais si Macky dafa leen yëlëb. Sall dafa yëlëb allié yi. am na lu ñuy peser ba tey. Ah, am na lu ñuy peser ba mais ils sont inexistants. tudd nga léegi tudd nga léegi Alimane. waaw Alimane kenn ko gagné fi mu dëkk. mais dañ ko gagné présidentielle bi. ñëpp lañ gagné présidentielle. waaw présidentielle bi dañ ko gagné même président Macky dañ ko gagné président Macky mosul gagné Fatick. ah non non non ko Fatick de. si ñëpp lañ gagné. déedéet Macky kenn gagné ko Fatick de. Macky Sall kenn gagné ko. on a perdu partout boo xoolee Fatick ak ko. ñu naan am mais xool comparé ko ñëpp lañ gagné. non kenn mais kenn gagné ko. amul ah, de manière arithmétique kenn gagné ko. Fatick ak Fouta waaw mais mais boo xoolee pourcentage yi nga xam ne dina am foofu si ak ak mu am léegi c'est c'est diamétralement opposé pour wax la ne amul fenn fu fu présidentiel yi bàyyi donc ravage la ñëpp lu yóbbu donc loolu mënuloo sukkandiku nga ne Alioune amul base fi mu dëkk élection yi président Macky Sall que ñëpp Alioune dafa gagné fi mu kooku am na dara donc PS pour man yële bu ñu la 27 am na ay zones yu ñu am lu ñu téye ba tey liggéey rek moo fi des dem sur le terrain liggéey waxtaan ak nit ñi defarwaat ñëw taxawaat man loolu laa gis et je pense que war na mun a bi ñu fi jógee en deux en en 2012 dañoo xam PDS dee na. déedéet PDS mosul dee. mais PDS mais boobu aussi ñaar élection PDS dem perte ko mais PDS ñoom xam nañu am na lu am ba léegi c'est que. daa am yoo xam ne dañu am ay sook te sookul yi mooy mooy seen avantage bu ñu si waree jóg fa la ñu pour jóg donc pour man su suñu retrouvé ak parti socialiste en tout cas man yow ko mais ànd naa si d' accord et je pense que war na. am